dafa jafe souvent nga am ay chercheur indi leen Afrique maanaam ñu ci bëri dañuy fekk na ñoom ak tubaab sax ñoo jàngandoo ñoo bokk ay yenn université ñu jàngandoo ci même université léeg-léeg sax raw leen raw leen bu baax nekk ci kaw mais tey jii nga jël leen jël leen ci foofu indi leen fii nga gis ne cadre bi ñuy liggéeye da ngay dem fu mel ni université laboratoire duñ ko am wala des fois sax ay problème yu ñàkk fu la ñu toll ay internet wala ay wala ay ay ay ay ay ay duñ ko am wala duñ ko am ci ni mu ko bëggee wala it des fois problème salaire lay nekk parce que cherche cherche aussi dafa metti parce que tey jii boo jëlee chercheur maanaam amuloo loo ko téyee moom amul lu mu rusloo amul lu mu rusloo rusloo wala amul lu doy loo xam ne ni vraiment dina tax mu téye njabootam konte tootu bu ko tubaab bi jëlee dee ndax ko fay ko fukk fukki euh, euh, euh, maanaam fukki yoon li yow li ñu lay fayti ah su boobaa dafay def te loolu it dafay tax ne ñun dañuy perdre ñu bëree bare